dal leen ak jàmm ci seen seen bi di seen njëriñ bi kii di nit li bokk ci leaderu parti bii di Pastef yëkkati na ay kàddu daal di leeral Sénégal yi que ne ci coow lu jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak kii di Mame Mbaye Niang foofee kenn mënu faa jaar daal dina saxal candidature kii di président Ousmane Sonko. ndax ne am na ay leader yi nga xam ne dañoo bokk ci biir parti bii di APR dañuy wër ci plateau yi naan article L29 ak article bu l fofé la le dal di éliminer le président Ousmane Sonko et or ko wa conseil constitutionnel ba éliminer le président Ousmane Sonko il wuñ mbir yi fofé mais malgré tout ça Ousmane Sonko garde son éligibilité parce que su féké ni article L29 bi nga retirer retiré wu ko don candidat parce qu'on a dit on a listé les infractions diffamation bokku ci wala ñu né condamnation par sursis de plus de six mois. plus de six mois. à ah, six mois C'est plus de six mois à six mois du ben. nga ñëw ci article L 30. daf la delluwaat article L 29. ci condamnation une liste, diffamation beaucoup fa. li ci des mu la amende Ousmane Sonko laalu nous ko amende. donc ba avec ce dossier là il n'arrive pas comme je dis à se départager. de Ousmane Sonko d'accord té nak li metti ci xol moy moy ñom lima la wax seeni loi ya ñu la yaakaaroon pour écarter Ousmane Sonko légui dañu ñew di violer loi yi amatuñ ci luñ ci rus quoi buñ sukkandiko ci ki di Ousmane Li foké né ci procès bu jaar ci digënté ki di président Ousmane Sonko ak ki di Mambay Niang fofé kenn mënu fa jaar ngir écarter kii di président Ousmane Sonko ci présidentielle 2024 ñu jëm. ndax ne foofee kii di président Ousmane Sonko six mois avec si lañ ko fa daan te ne boo demee ci code électoral article L vingt neuf ak article L bi foofee li ñu fa wax moom mooy que ne bu fekkee dañ laa daan ci délit bi ñu dippee diffamation ngir loolee tere la bokk ci élection faaw ñu daan la lóopu six mois. te ne kii di président Ousmane Sonko six mois avec sursis ko daan ci coow nga xam ne dafa jaar ci diggante moom ak kii di Mame ne li ni mel terewul benn yoon kii di président Ousmane Sonko daal di bokk ci élection si réew mi Sénégal contrairement ak yenn leaderu APR yi luñ bëgg a population sénégalaise bi